voilà am naa empêchement mais fu ma jaar te kooku mbokk la mbokk mooy wax loolu mais mën nga wax nit ñi kan mooy bon kan mooy euh, Pape Ousmane. waaw usmaan euh, mën fu tax a daje mën fu tax a ñëw loo tax ma ne la même bu ma amoon empêchement demee ñëw nekk na xale bu yaru Ousmane boo boo buggee xam kan mooy Ousmane rek xoolal si papam yaru na yaatu na te bugg na mbokk aussi dama koy ñaanal daal. lii il il y un succès éclatant et un succès aussi professionnel d'ailleurs. Je vous en